Nous avons lancé un programme pour la jeunesse du mouvement Sigi John. Nous été initié programme bi nag mu ngi euh, les vacances utiles de Sigi, ci programme boobu programme. ñu activité ci activité activités activités citoyennes mais yu nekk en adéquation avec la situation de pandémie où nous nous sommes confrontés euh, ci euh, activité yooyu nak ñu euh, lim activité don de sang bi nga xamni prévoir nañ ko war ko def à la deuxième quinzaine du mois de septembre. activité bobu am comme objectif recueillir pas moins de 200 postes poches de sang yo xamni dañ koy banque de sang bu l'hôpital parce que gis nañ secteur où avec l'avènement du coronavirus gis nañ a un impact ci secteur Nous ñu amone une activité bo xamni aussi dañ ko bëgg def à la première quinzaine du mois de septembre mu nekk une euh, activité de reboisement L'objectif est de planter 500 arbres chaque jeune planter un arbre daal di soit pour que nous aussi mu am ay yu am solo environnement. Euh, plan programme euh, bi nga xamni dañ les vacances utiles de qui nous du vu nous envisageons aussi lancer la campagne de sensibilisation et de don de masques cette campagne bobu nak on a confectionné 200 000 masques dañoo bëgg a ci quartier ci gox distribuer ko fa mais comme ça dañoo gis que ni depuis apparition euh, coronavirus fii Sénégal nit ñi ñu ngi maye masque ñu ngi sensibiliser ba parce que askan bi tamit des nañ loxo ba euh, depuis quelques temps la jeunesse est accusée à tort ou à raison d'être les principaux acteurs de propagation du virus donc ñun tamit ñu ne ndaw si gi jone yi dañuy jug amaat beneen taxawaay ci loolu mooy lan mooy que ni dañuy ñëw lëkkaloog ñi nga xam ne ñoom ñooy ASC yi nga xam ne ñoo nekk ci gox yi lëkkaloog association de jeunes yi nga ne aussi ñoo nekk ci quartier yi pour que ensemble ñu def une approche communautaire boo xam ni dañuy dem ci askan bi sensibiliser leen sensibiliser suñu mbokk euh, ndaw ñi wax leen leen ñun nag ñun ñoo mën a sàmm suñu way jur yi yaakaar naa ne suñu way jur yi nga xam ne ñoo ne ci kër yi demuñu dikkuñu ñun ndaw ñi saa su bu ñuy génn ci kër gi war nañoo def suñu xel ak suñu xalaat waruñoo jël doomu jàngoro ji leen ko loolu nag lan lañ ci mën a moytoo di takk masque mooy saa su ne chaque une heure temps ñuy raxas loxo yi ak saabu ak eau de javel bu ñëwee ci kër gi tamit bala ñuy jàpp dara ñu raxas loxo yi ba mu set wecc euh, yére yi nga xam ne moom nañ soloon ñu dem weer ko sous le soleil parce que yaakaar naa ni am na ci ndaw ñoo xam ne doomu jàngoro bi mën naa dugg ci ñoom ba génn te du am ay mandarga feebar li ñu naan les cas asymptomatiques mais am ci euh, loolu mu jig ndaw ñi nag jug ko su nu yaay jug ko suñu papa yi jug ko suñu tante yeeg yi nga xam ne ñoo ne ca kër ga donc ngalawaay ñun jeunesse Thiès ngalawaay ñun jeunesse Sénégal dañ leen taxawaat pour aar suñu wayjur yi nañ takk suñu maski yi aar suñu bopp aar suñuy mbokk aar suñu gox parce que nag suñu wayjur yi amuñu ñu dul ñun yaakaaruñu ñu dul ñun pour ñu sàmm leen ci doomu jàngoro ji nii ñu ngi woo jeunesse su Thiès yëpp encore une fois ala à plus de responsabilité il faut que ñu jëlaat aussi tamit suñuy sens de responsabilité xam ne dañoo war a taxaw suñuy wayjur juri